xaaj bu njëkk bi ci juróom benn xaaj yi yeesu joxe na boppam ni ab sarax tey dinañu waxtaan ci bi ñu daaje yeesu ci bant bi bi bésub jéggi bi jegesee njiitu diine di wut pexe ngir rey yéesu yeesu yuda iskariyo kenn ci fukki ndaw yi ak ñaar dem ci sëriñu yawut yi ngir wor yeesu ñu fay ko fanweeri pasiti xaalis ngir mu wor yéesu keroog bés boobu yéesu màggal na bésub jéggi bi ci yerusalem moom ak ay taalibeem waa israyil dañu daan màggal bésub jéggi bi ngir fàttaliku bés bi yàlla jëlee waa israyil ci buumu njaam ca misra ca jamono yooyu la waa Israël dale di rey am xar at mu nekk ngir màggal yàlla. yéesu lekkandoona ak i taalibeem ca reeru bésu jéggi ba ca genn kër ca néegub kaw ba ca Yerusalem la woon. yéesu jël mbur mu amul la wiir mi sant yàlla damm ko jox taalibe yi. Yeesu wax ne. mburu mi mooy yaramam wi nar a damm noonu mu jël ndoxum reseŋ jox leen ñu naan mu ne ndaxte lii sama deret la ji fas kolere gi te mu tuuru ngir ñu bare jot mbaalug bàkkaar yi yéesu ne taalibe yi kenn ci ñoom dina ko wor taalibe yi jaaxle laaj ko kan ci ñoom mooy warkat bi noonu yéesu wax yuda iskariyo mu dem def li mu namoon a def ci lu gaaw léegi ma laaj leen benn lan la yéesu méngale ak mburu mi mu damm ak ndoxu reseñ mi mu xelli mburu mi mooy yaramam wi ay noonam nara damm ndoxum reseñ mi mooy deretam ji nar a tuuru ngir ñoom bi mu deewee ñaar ci seen xalaat lan la yeesu bëgg a wax bi mu nee lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bare jot mbaalu bàkkaar yi mu ngi doon fas kóllëre gu bees ak i taalibeem képp ku gëm ne deretam jooju fay na say bàkkaar yàlla dina la baal te boo deewee dinga mën a dëkk ak yàlla ca àjjana ba faw